jërë ngeen jëf amee téléspectateur u people leen di nuyu di leen ziar di am mbégte ci di ñaan ci réew mi jàmm di ko sàkku ci yéen te di ko ñaanal sunu kilifa diine ak sunu kilifa aada yi euh, di ñaan réew mi di Sénégal yàlla na sunu borom doole jàmm tey nag ma toog ak koo xamante euh, muy suma maman moom ndeysaan maa ko bëggal suma bopp parce que vraiment baax na yaatu na te ni muy waxee boo ko fekkee këram xam ni noonu la mel vraiment no problème te zéro stress lay dund muy Tata Kouramaki. à l'international ki nga xam ne dafa ñëw changer système bi ah moom la ñu fas yéene seqal bàyyi nga nuyu ñu lay siiwal fii ci people 221. ah yéen waa 221 moom da ngeen a xew sax nag. Hmm. yéen a mën a yéen a mën yem danoo xew ci réew mi. <laughs> ah di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal senegal yëpp. di hmm. kontaan ci jël bi ngeen ma jël si nii. Hmm. di ñaanal réew mi yal na fi yàlla yokk jàmm. di nuyu Sénégalais yëpp. di ci jiital kilifa diine yéeg yu aada yi. Mm-hmm. di ci teg ki nga xamante ne ni moom la yàlla teg ci boppu réew mi. Mm-hmm. di ko ñaanal gudd fan gu mat sëkk. Mm-hmm. yàlla bu noonu man ci président Macky Sall dara. ndax dafay nit ku baax ma xam ko. man la 5 février bi di ñëw laay am 28 ans Amérique. nangoo liggéey. Euh, xam lu baax xam lu bon xam ku may nax. Mm-hmm. xam ku war a nax sama réew. Mm-hmm. man faruma ak président Macky Sall dama ànd ak moom. Mm-hmm. te topp ma ko rek. di wax dama bëgg Macky dama bëgg Macky. dama ànd ak moom. pour mën a jàppale ko ci réew mi. ndax John Kennedy. Euh, président bu mag ba. dafa ni. Don't ask your country what he did for you. Mm -hmm. The country ask you what you do for your country. Mm-hmm. réew mi. Mm-hmm. ñooy laaj yow lan nga ko defal yow mi fi judd. d'accord maman dinaa ñëw foofu tuuti. Mm-hmm. Euh, fi muy njëkkee ci sama premier question mooy maman euh, lan moo la dugal ci politique da nga jógee États-Unis ñëw dugg ci politique wala da doon politique bi nga nekkee États-Unis ba tax tey nga ñëw Sénégal adhéré ci. non non man Amérique. Mm. Euh, aar moo ma fa yóbbu. waaw man damay jàngale fecc. Mhm. ci école yi mag yëpp. Mhm. dama koy waxaat sénégalais yi boo taxawee digg marhatan. Mhm. école boo gis wala black buy dox. nga ne ko do you know Koura Ndiaye mu na la best dancer in the world. fecckat bi gën a mag ci àddina. Euh, ma bare national. tukki fépp ci monde bi. màkka kese laa demul te mel ni dem naa <laughs> bu naa fa sama yaay. Euh, politique. Euh, dama bëgg a wax sénégalais man duma ma politicien. d'accord man Macky laa man faruma ak Macky dama ànd ak moom. di jëli Amérique ci sama ñaq di ko indi Sénégal. am na yoo xam ni. bugguma ko médiatiser parce que sunu borom moo tax. lu mu yàgg yàgg damay dee te bëgg naa def lu baax. dëgg la. ba ma duggee ci defendre président Macky Sall ba léegi noppaleku ma six mois bu nekk wala un an bu nekk ma indi conteneur boo xam ne lépp ay bagaasu xale la yu jëm ci daara yi. ci église yi SOS. depuis 2019 maa ngi koy def. Mhm. Euh, li dugal nag ci politique. Euh, Amérique la ma dale dama wàcc liggéey di seetaan YouTube. yem ci ku ñuy wax Assane Diouf di saaga président Macky Sall ndey dama tiit ba ba ba ba xamatuma lu may def ma woo sama xarit bu tudd Ndeye Fathiam bu dëkk New York. ma ne ko Ndeye Fathiam mais Ndeye Fathiam kii di saaga président bi ndey xanaa dafa dof. ak Sénégal ni ñu bañee saaga. mu ne ma kura kii def na weer sunu xol yi mi ngi dagg. Mm-hmm. ma ne ko waa lan la ko def mu ne ma réew ma ne ko xaaral ma ñëw. dugg Google xool lan la président Macky Sall di def senegal mm-hmm. parce que musuma ci concentré ma xool gis ni man kura li ma gis ci àddina warangal képp asi Europe États-Unis mm-hmm. ma ne kii senegal mi ngi avancé di yii yëpp mi ngi fayam léegi. wala tax kii di ñu koy saaga parce que Assane Diouf Ablaye Wade la. xaaral ma ñëw cinquante deux état ñëpp ni paat maa jóg assommé ñu ne déete waay ma assommé Tunkara nii la sama tur génne mhm. ci woon xam Macky mhm. xalaatuma woon lima yàlla def tey mhm. dëggu ma ci dugal I am a hard worker single mother who believe herself. deux mille dix ba tey jii nii. su may ñëw Dakar man may paasal sama bopp first class laay ñëwee. fii ma dëkk koy fay. man damay dimbali. Macky Sall dama look around he's a best president. Mhm. faruma ak moom de. Mhm. duma fan su de. Mhm. dama ko naw gis li muy def di góorgóorlu senegal lu nu ko bañ bañ nangul nañ ko ni jàmbaar la li muy def. Mhm. trois présidents mooy quatre bu ñu gis mu am lu muy changé si senegal mhm. te loolu muy réew. first of all. tali la ma américain yi wax mooy doxal réew. parce que ci la commerce bi di dem ak ñëw. terrain ci la commerce bi di dem ak ñëw ni ñi dem xaalis. président Macky Sall ci gën a rëy muy Ila Touba boo fa doon dem ni nga def quatre heures de temps wala cinq yi maar day taali da ngay ñëw def naa quarante cinq minutes man jóge Touba def quarante cinq minutes yegg si Dakar dama yuux ba ma wàccee fii dama ni borom oto bi danga ma bëggoon rey yàlla indi na ma sama buntu kër ndax li gaaw mosuma ko gis mu jógeeti fa diggante pont wu Gàmbi bi ak Casamance danga daan fanaan ñetti fan doo jàll da ngay ñëw tey jàll. ñu ne lan la Macky Sall defaat mu xëtal ñu aéroport bi nga xam ne aéroport bi Senghor def macha allah fa tabarakallah foofu la tombeloon président Macky Sall wàccee la fii aéroport boo wàcc di nga naw sa aéroport. mais ñu bari nag dañoo jàpp ni loolu noonu ay projet Ablaye Wade la woon moom daa ñëw rek yeggali. àddina yëpp yeggali la. lii ngay def nii yëpp ëllëg sa njaboot dinañ ko yeggali. dëgg bu ñëw. dina am loo xotti mais ka ca topp moo koy yeggali. dëgg mën na ñëw di ko yeggali. ndax léeg nga bokk ca te dun la ca sédd. mu ne lii Ablaye wadd doon def yëpp dama koy yeggali. Mhm. ferte Ablaye Wade la. Mhm. Sénégalais yi jékki-jékki am ku génne fële ak meram dama yërëm senegale dama dund ci tubaab yi. Mhm. dañ ma jàngal lu bari. nit mënul faktab sama maayin bi mënoo mm-hmm. ma wax loo xamante ne ni seetu ma ko ba xam lan la mm-hmm. duma liir rek ni oh ok lii moo xew non duma ma seetaan vidéo ni dëgg la damay laajte mm-hmm. parce que tubaab loolu lay def mais da ngay dégg léegi ñu bind ci kuram ak dara rek nga reprendre ko te fekk du dëgg yaa ngi bakkaar Ousmane Sonko moo ñëw déranger sunu dund bi ñu doon dund ñun sénégalais. d' accord maman foofu noonu dinaa fa ñëw bala maa ñëw ci Ousmane Sonko. Mhm. damay ñëw ci ci ci ci sa dugg si dama koy dama koy dama koy dama koy dama koy gaawal. ci sa mhm. dugg si biir assemblée. Euh, sénégalais yu bari di ko naqarlu ni Coura Macky lan moo tax mu fay duggu ñii naan non bruit moo tax mu fay dugg ñii naan euh, président daf ko jël rek pour arme moo tax mu dugal ko biir biir biir biir biir assemblée. mais xanaa xam nga ni léegi am naa fa njëriñ. non léegi moom dafa détaillé grossiste la léegi man foofu grossiste laa fa. Euh, mhm. du ñu xool sunu borom. Mhm. man damay wax sénégalais ni leen dama mbappat. Mm fii ma dem nii tey dinaa dem feneen. Mhm. man dama liggéey femme décembre di ko jox sama yaay. dama jaay koko. ci marché tali bu mag. Mhm. dama jaay ananas. Mhm. dama fecc bale. Mhm. dama commerce. dama téye dama dawal taxi. dama lët lépp pour dundal sama ndey ji ba am ngërëma. mu ni ma balaa nga xam li ma lay ñaanal ma dugg suuf àddina bépp nañ la dégg. mu dee mu def ñetti at ñu fal ma député sénégalais def ndànk ci man Guy Marius Sagna ma yéeg ca kaw taabalu pencu ndawu réew mi takk sunu drapeau national kooku moo war a dem man ma toog bartali bi jaas mi dox def ñaadam ñaadam sénégalais yëpp di ko xool kilifa dina yeeg yu aada yëpp mu buddi micro kooku moo wara a dem assemblée. Mm-hmm. Guy Marius Sagna doxaatul fi ñuy voté mu buddiwaat ko. kooku moo war a dem assemblée. ba nga ma gisee assemblée ba léegi sénégalais yëpp a d'accord. am na ñu ma wooni ma baal ma àq. parce que bu ma fa taxawee waxaluma Cité yu fay waxaluma Pikine Sénégal gépp laay waxal liste national lañ ma dugal. mais bi ngay dugg si ci assemblée mu mel ni yow da ñëw dugg si ak. ak guerre parce que bi ngay ñëw yaa ngi defar sa benn pochette def fi sa benn goon mu mel ni ngay mel ni ku jëm xee ku ku jëm xare quoi da nga jëm assemblée. Euh, xam nga sénégalais des fois duñu understand. Mhm. dama fi def benn buzz boo xam ni léegi maire ak gan lañ may woowee. Mhm. <laughs> ma xalaat ni sénégalais yi dañ ko bëgg ba ci xale yu ndaw yi. ma dem ma commande pochette bi. Mhm. pochette bu ndaw la rosa rek moo ci xaj ak carte ma xam ne comme artiste laa. Mhm. ma xam liy def buzz. mais ma yëngal mais sénégalais moom lañ co mhm. la ma xalaatoon moom. Mhm. ne bu ma koy yoree damay def buzz. ma yor ko. mais yoruma ko pour dóor ko nit yoruma arme pour non. tant que songoo ma mu wóor ma ni yow góor nga danga ma bëgg a ñëw toroxal. am nga na poul de triga. d' ci foofu noonu laay ñëwee sànq yaa ngi koy wax ne ku mel ne Guy Marius foofu laay njëkkee. Mhm. di dem di dem assemblée ñu gis ni moom souvent yu bari daraan ñëw di plaider Sénégalais yi taxaw di wax sénégalais lu leen naqari kon kooku noonu askan ko fa yóbbu. Mhm. moom moo fa yóbbu boppam. Mhm. Euh, askan bi dañu def benn erreur ci Guy Marius Sagna man guy laa koy woowee guy gu mag gi. Guy Marius Sagna askan bi dañu def erreur yóbbu ko assemblée mook Barthélemy bi. Guy Marius Sagna dafa ni salaamaaleykum yéeg ci kaw taabal yi taxaw Sénégalais yëpp ñaawlu ko nag. amul kenn ku ko rafetlu. sometimes sénégalais yi du ñu understand ku dof. dof du dama sol sama yére yi si luy seetoo. ci biir dafay am dof. moom da euh, li ma nekk moom quarante cinq jours. I know this guy have a problem. Guy Marius waaw dafa am Euh, ba ñu ko indee mu yéeg ci kaw taabal yi taxaw yor drapeau national bi lañ ko waroon a génnee ensemble jour boobu. du tax parce que du saañ bu rafet violent la. ñàkk mais que nekkul dafa yéen li ngeen ko imposé woon moom xalaat ni am arrangé askan wi moo tax. mu fayu. Euh, ba ma fa duggee ba léegi Guy Marius Sagna waxul dara lu arrangé askan wi kon maa wax ko man dama dëggu. Mhm. li muy wax sareetu mbaam. sàcc yi sareetu mbaam sàcc yi ma ne leen mais lan mooy sareetu mbaam ñu ne ma ñan ñoo defaroon ay sareetu mbaam kuy mari sagna boo ko woowoon léegi wax ko problème danga koy fay euh, deux cent euros pour mu ñëw sa gox pour waxal la kooku patriote la d'accord boo ma woowoon pour am loo xew sa koñ dama koy ñëw filmer wax dëgg ba daal di dem sama yoon soxlawu ma sa dërëm d'accord Guy Marius Sagna ñu ne jàngalekat la muy fayeeku xaalis xaalisu réew mi ñu affecté ko mun a demut di yëngal daw yéeg ci miilu palais bi ku la mayoon ay milliards sa dignité ëppal na la ngay dem di yéeg ci barrière pare yi waat bëggoon siiwu bëggoon ñu xam ko ci violent Bartali bi li wutee ñoom ñaar Bartali bi dafa reew xamul <laughs> dinaa ñëw ci Bart. Mhm. mais daf ko gën xol. Mhm. parce que ci say benn interview maa ngi dégg nga ni Guy Marius Sagna xol bi baaxul. Mhm. bi doomu politicien la Diaz mooy papaam mu ne dama dëkk sama kër papa fayuma courant fayuma ndox joxewuma dépense mooy kon dawul dara pour jox famem mhm. teg ci ñàkk xam doomu politicien la mais xam naa ne dafay nax sénégalais yi day show spectacle. lan mooy seen lan mooy seen problème yéen ñaar. reewande ñàkk xam boppam. Bart. Mhm, di doomu politicien ñun ay doomu pauvre lañ. Mhm. ñun dañu jaay ay kokook ay ananas. Mhm. moom 15 ans lam am yóbbu ko Amérique mu jàngi. jabaram jamaïcain la. doomam yi américain la ñuy làkk. ak français dégguñu wolof. wax na ko ci Aïssatou Diop Fall. kooku bu ñëwee di district nga gis te réew mi réew mi dañu war a prêter attention kii nuy fal la mu teg ci rey nit doomu pauvre la tiire ñëpp seetaan mu ne rey naa ñaari nit maa ngi jaale seen famille mais dee nañu dem leen hôpital seeti leen yaayu baara juuf la xaw ma mi ngi jooy ba tey pauvre la kii jaas mooy papaam depuis Senghor la fi ne. Mhm. xanaa loolu moo tax àtte wuñ ko. après ñun pauvre yi ñu ànd ak Bartale bi jaas ñun kañ la ñuy dund ci Sénégal. et pourtant day sénégalais yu bari dañoo rafetlu li Barthélémy Dias dem assemblée ba tax ñu jox ko ndoom. musul ñëw muy muy muy muy muy maire de ville. quatre fois la ñëw est-ce que yoo xam ne en tant que maire de ville. dañ ko fal député pour mu kaasal askan wi. mais fa ak dafa war a ñëw dañ koy fay un million trois cent mille essence am ay buggu essence am frais de location lu tax du ñëw ñëwul quatre fois la ñëw Antoine euh, euh, Sidiki Kaba. ministre justice nu mu tuddati ministre justice bi. ak barki démb ba ñuy tëj. li ci des yëpp ñëwul xamul xew. ñu ñëw di déconné waat di yëngal pour sénégalais dox seen maayin yi ñëwul waxalu leen. kaasalul benn yoon ba mu ñëwee li mu wax yëpp dégg ngeen ko waxul daara xamul fa xew. d' accord mais maman sénégalais yu bari li leen jaaxal mooy Barthélémy Dias ak ni mu mel ak fulla ji ak dignité ji ak personnalité bi tey Coura Macky def lu kenn mësta def ni day song Barth pour xeex ak moom. Oh, Barthélemy bi dafa taxaw wax loo xam ne yaakaaruma ko ci moom premier magistrat bu Dakar. Mm-hmm. lu mu metti metti metti boo taxawee war nga wax ni ànduma ci góor buy dóor jigéen waxantuma la ñaar loolu mooy fulla loolu mooy fayda. Mm-hmm. mais dafa taxaw mu ne. Ami Ndiaye dafa jël arma seize. Ami Ndiaye ki wàcc di wàcc di ko dóor si ñëpp a ngi koy gis ba ko dóoree ba ko dóoree ba pare ci la daw di wut lu mu fayoo ñu nangu seize bi keneen jóge fee wequ ko ci biir Bartali bi seetaan na ko. mais moo tax ñoo dóor ko est-ce que nekkul tamit dafa laal seen iman seen. gëm laalu dara taalibe seex laa xaw oh, la lele. waaw bu far de am fu may far. fii. ci sëñ Babacar. dëgg la Moustapha Sy sëtu sëñ Babacar la direct. dëgg la papaam sëñ Seex Tijaan si man moom laa gëm man gëwma Moustapha Sy. dëgg la moom laay déglu depuis quatre-vingt-cinq sëñ Seex Tijaan mooy sama jàng képp kuy waaraate Sénégal dégluwuma mala man Koura Macky. Mhm. sëñ Seex laay déglu. Mhm. Amin xale bii nii Masata. moo yéeg depuis ci saalu plénière bi man la doon bëgg xeexal teg ma dënna ne ma imbécile mu xam ni kii gaynde la mu dellu ginnaaw fekk li muy wax man xaw ma lan la mm-hmm. tiwaawan la doon wax ci al amin ak doomu maam Abdou yi ne ñoo sulli benn néew mm-hmm. te Antoine yow la yow ak Macky da ngeen ragal Moustapha Sy Antoine ñawaat ci saalu plénière bu mag bi mu waxaat ko ni ko gàmmu gi paase joxu leen Moustapha Sy sécurité ndax da ngeen ko tàppet yow ak Macky te moom bu wàccee ami ñibbi moo war a yéeg. Mhm. ay tàppet ngeen ami ñibbi yéeg ni ko kuy jàpp rawaan looy doyee sécurité. Mhm. am na ñoo xam ni. seen sëriñ waxoon na fi bu bu xalifa duggee kaso mu dugg te duggul ku respecté sama kilifa ma respecte sa kilifa dafa wax ak Moustapha te tudd ko mais ci cadre politique Moustapha Sy politicien la dina dégg lu mm-hmm. <laughs> day dégg lu ne mm-hmm. mais saagawul su Amin Ndiaye saaga woon Moustapha si ma Gitangaas taalibe Serigne Babacar laa man. d'accord kon foofu noonu nga sukkandiku ba tax nga dem song Barthélemy Dias. ah, ah dafa ñëwaat barki démb ci fin bi man nekkuma fa sax. Mhm. ma génn toog ci biti Barthélemy Dias mu ni Amin Ndiaye dañ koy porte plainte ndax dafa jël arme. d'accord ma ni ko nigga you lying. mooy la fen. jigéen boo fekk mu toog nga mbéj ko day wut lum la dóor ku dëccu ñaar laay wër wala kuur wala xeer góor damay jéem a fayu. Mhm. it's natural. Mhm. ministre justice Ismaïla Madior ak ñi takk ndombo tànk yëpp ñu ngi toog nii di seetaan. Mhm. amul dara luy leen nëbb. franc grand télé. Barthélemy Dias ni Ami Ndiaye moo ko tooñ ma ko waxoo dëgg yu lying mu ne ma ñëwal fii ma mbéj la comme ay mbéj ngeen bëgg ma riir ñu téye ma ma summi sama dàll sànni ko néega bi <laughs> bu ñu ma bàyyi woon mais dama koy gàjj yow. <laughs> koy gàjj Barthélémy Dias ba pare ba pare dama koy sotti suuf ndax yoroon naa suuf ci sama loxo <laughs> ci bët. koy sotti suuf dinaa dóor Barthélémy Dias ba Sénégalais yëpp takkal ma médaille kenn ku ne di ma takkal médaille. mais mais maman maman Bart américain mais may américain. Bart mën nga koo dóor. barki Rasulaay néeg bi xam na ma. da nga yoroon suuf. mais suuf laa ngëp. pour sotti ko ñu téye ma summi dàll bi sànni ko ko wan ne ko néega man daw ma te Bartali bi xam na ni man duma ko daw. Mm-hmm. Amérique la dëkk ma dëkk fa. Mm-hmm. Bartali bi xam na ni <laughs> néega am na afraid on you moom xam na loolu. d'accord léegi eh, man maman li ma li ma comprendre booy Kouramaki bi mu ñëwee bi mu ñëwee ensemble ba tey ñun dégguñu muy kaasal dëkk bi muy waxal li population bi soxla moom daal. dafa ñëw rek pour guerre barki démb ñu la gis tamit yàgg maam jaara faam mais mais maman lan mooy sa problème wala dañ laa fal pour nga ñëw rek. <laughs> lu waay wax man saa yu ma yéegee Sénégal gépp a tax looloo tax ma xew. Mm-hmm. ministre de la culture bu ñëwee ma wax ci culture bi. Mm-hmm. artisanat bu ñëwee ma wax ca. Mm-hmm. pes bu ñëwee ma wax ca. Euh, euh, euh, béykat yi bu ñëwee ma wax ca. ndax dama am ay mbokki béykat. Saalum la sama yaay juddoo. ñi amul courant ci dëkk kaw gi wax naa ko. sénégalais yi am na ñu ma déglu nag. lépp luy dëgg yow ministre bi président Macky Sall jox alal ji. ngel na ci askan wi gis seen bopp. man de laa doon wax. mais loo jotee ak maam Diarra Fam. maam Diarra Fam jotewuñ dara dafa xewi. maa maa xew. kan moo xew maam Diarra Fam. waaw. dafa lakkale woon ci ensemble bi ko wax mu saaga la débarki démb ba mu yéegee dégg li mu yekk Amadou Maam Diop président bu baax boobu. mu wax ma wax boo xam ni yàlla mi ngi may dégg ma tiim sama bàmmeel man ak moom ak yàlla rek. Mhm. mu ne ma kura yàlla moo ma def njiit bi bennoo laa bokk mais njaaxaanaay laay tëddee. Amadou. barki salaatul faatiha. xam naa ko. mu ne ma njaaxaanaay laay tëddee. leen faral bàyyi ñi maay seen président. mu saaga ko saaga yu ñaaw barki démb maam jaara te rafetul ñun bu ñu yéegee foofu bu ñu waxalul dëkk bi di xas nit ñi. Mhm. nit ñi ñu ngi ñuy xool maam jaara femme dafa vulgaire yow. ba mu saaga mam Diop romb am na ku saaga Ablaye Wade nday muy reyanteeg waa waa waa waa be waa kii yeewi. Mhm. <laughs> dégg ngeen ko muy yuux noonu. Mhm. yeewee saaga Ablaye Wade te ñun mosuñu saaga Ablaye Wade ndey. maam jaara faam baara dolli ay fekk lañ gëmuñu réew mi. ma ñëw ci ci dolli <laughs> baara dolli lan la. fekk kat ci kat xeesal bàyyi ñuul ko. <laughs> ci sëtub Serigne Touba mu ni mu ne tuubaa ko gënal lu ne bu amoon lépp fii la ko naan doj ñett yóbbu Touba. Touba senegal la. Mhm. Ahmadou Bamba matu Bamba Sénégal la bu fi newoon tey lu mu yor séddalanu ko. dëgg la ñaan wim nu bàyyil mi ngi nii ñuy dund. Mhm. mais xam nga booy politik te far. dangay wax loo xamul mi ngi nii kàcc na kàcc yoo xam ne ci journal bii ne député yëpp dañ leen jox kenn ku nekk cinq cent mille billaahi wallaahi xama yëkkatee sama loxo bi yàlla bu ma dellu Amérique. bu fekkee ba ñuy ba pare jox nañ ñu ku ne 500000 yàlla bu ma dellu. mu génn yàq askan wi seen xel ah buñ ma woowoon léegi jox ma 500000 dina ma neex de mais joxuñu ma dama woote tey ci suba. ensemble di laaj laajte ñu ne ma ban 500000. ma ni mais dafa am ku ma woo ni ma daf ko gis ci journal bi. ñu ne ma baara li moo ko def te baara dolli bum ñu tax a wax. moom li mu voté yëpp dañ ko jënd. baara baara dolli yow. te moom askan bee ko ñor de ci xam. ban askan poosam bi ko ñor dafa am ñu ñuy votel ministre yi leen di ceebal ak ñoo xam ne duñ leen votel ñoom ñëpp xàmmee naa leen xool naa man assemblée ma doon xool. te baara ci la bokk. waaw dañ naan ni yeew yi ñoom ñu di leen xool parce que neexal nañ leen pour ñu voter réew mi seen pos moo leen neex ñu leen ci dugalal ay un million deux million trois million ñu ne pat di nax askan wi li may wax dëgg de kon na nga jàpp ni baara dolli loolu mu doon wax noonu nii dañ leen a jox ku nekk 500000 day nax gaa yi. barke salaatul fatiha kon da nga jàpp ni ñoom dañuy ñëw pour pour. est-ce que moom moomu joxuñu ko sax 500000 Amadou Ba ñëwoon de xaritu Amadou Ba la de. baara dolli. mu yéen xaritama baara dolli dox naa ba fekk ko bureau Cheikh Tidiane Ba man mi ba mu nekkee ba mu nekkee fii nii impôt domaine ci dakaar fekk naa baara dolli moo ma fa fekk may xaar salte d' accord ma fure ci feewu bay fan yi Air France bi am problème en tant que état Sénégal yow nga bokk ci loolu loolu est ce que c'est normal nga dégg la xew. lan moo xew. lu rëy bëgguma ko njëkk wax léegi nga dégg lu rëy di ma jël si waat. Hmm. lépp maa ngi ko yor sama téléphone bi. doo ci wax. lépp ñi ci wax ñi ci war a wax ak ciy wax. d' accord fi may jeexale mooy affaire Ousmane Sonko Adji Sarr audio yi fan yi mu mel ni gars yi dañoo daanu de parce que keroog bi Baye Mbaye MC demee ah fee nga xam ne mooy tribunal ba tey déggatuñu waa APR wax de xamul euh, dama bëgg ñu génnee ci waa man damay wax ak Adji. Mm-hmm. Adji waaw. naa ko rek tey ci suba jotaguma ko. waa APR. Mm-hmm. seen yoon nekkul ci lii. Mm-hmm. Sonko mm, bañuma ko. Mhm. ndax man du ma bañ doomu aadama sama xol noonu la mel. Mhm. dama lay jéppi. da nga koo jéppi. waaw. tey Sonko dafa laaj réew mi. Mhm. xale yëpp jël seen xel jox ko. ak seen yaakaar ak yenn mag yi sax. ñu ni kii nit ku yiw la. système bi système bi. mu am fii lu ñuul. def sikkim gisati nga lu ñuul la fii seetlu ko sunu boromaa yi dem na. lu ko du ko yóbbu. kenn gisatu ko li ñuul li amoon fii seetul di may waxantu de xoosu na. <laughs> lu ko xoos. ñu naan kii ku baax la nit ku baax la du nuyu jigéen ñëpp naw sonko ndekete sonko liñ naan nit dafa lëndëm mi ngi def loo xam ni ba mu génnee ñëpp dañ na du dëgg. mais audio yi. Baye Mbaye am na léegi lu mat neuf mois dégguma ko mm mbay Baye Mbaye moo ma woo. dama ko defal vidéo fii ni ko danga woo aji di ko doxaan. di ko dama lay takk moom Baye Mbaye MC. moo woo aji di ko doxaan. waaw. MC Hamma xale bi bañ muy nax xale bi pour jàppam président Macky Sall nee na otage dama wax ak Baye si de. Mhm. xam nga Baye Mbaye MC Hamma mu ne ma kura aji maa ko waxloo maa ko proposé xaalis maa ko waxloo maa ko enregistré ma ne ko est-ce que jëm loolu boo defee nit. Mhm. Baye Mbaye. Baye Mbaye du da nga ne aji sa. taalibe la euh, taalibe mhm. dañ koy defar. li nga bëgg a def nii mu ne maki Sall la déglu li may wax de. ci moom laa far. Marème fay Sall dama koy gërëm ndax am na ko feebar wax ma ko ma woo. fondation ñu fajal ma ko ba mu wér mais Macky Sall sunu jàng yi passé ku nekk cent vingt cinq mille la jox. Mm-hmm. te yeneen kër diina yëpp ñu fay def teraanga dinaa ko xeex ba mu xam ne xeex naa ko ma ne ko kon ci aji Sarr nga koy jaaree di xeex président Macky Sall. Mm-hmm. mu ne ma waxal Macky sàll mu recevoir ma. Baye Mbaye MC Hama. Mm-hmm. ay mbokkam. di ma tëkku ma woo ko moom li ma ko mujjee bàyyil ne ko neel ki may tëkku day dee xamuñu ma dañu ma jékki-jékki rek gis ma su ko delloowaatee ay fanam gàtt. Mhm. mu ne ma kooku di waxak ak yow warula waxak ak yow sax dinaa la woo ndax yow waxoo ma dara lu garaaw saaga woo ma. Mhm. ñi ma ki saaga sama waajur ñépp gis nañ ko yow tuddoo sama waajur MC Xama laa koy woowee. Mhm. du ma jaar sax ci sant bi. parce que mi ngi doxal comme yow li ngay doxal ku santul ñas wala mbàkke wala si. moo tax ma koy wax MC Hama. rôle boobu la doxal ci xale bi. aji saar bu senegal fàtte ni 2002 la judd. ndayam de mu jóge dëkk ñëw daje ku mel ni nday xadi pimp pimp ci anglais mooy ñiy dajale jigéen ñi di leen jaay. ay 18 ans 19 ans di leen wutal ay patron ku day ni sa baay nga summi ko def ko taatu neen di ko bës góor ak jigéen ci xale dara dina fa am d'accord ma ñëw ci sa collègue de travail muy Fouta Tampi ñoo gis fan yi mu génn di ñaan dimbal di am ay jafe-jafe location te yéen ngeen bokk même si dem muy mbagg yu fay ba pare même même parti ngeen bokk ko est que loolu noonu jaa jaadu woon na état bi toog di xool ba loolu noonu di ko dal. fiis mhm. man dama avancé. Mhm. honorable lañ may wax. <laughs> dañ ma takkal drapeau national jox ma signe bi. ma proud sama bopp. sama yaay déggoo li ma la commencement bi dafa ni ma balaa nga maa xam ma dugg suuf. Mhm. ma di ko dund. kenn du ma ko yàqal honorable laa wax ma leneen laaj ma leneen. mais sa mais la. laaj ma leneen. Mm-hmm. damay asgor. Mm-hmm. ñu takkal ma Macky Sall investir ma. Mm-hmm. bugguma dégg ci ay waxi ñàkk fayda kalaw kalaw. yàlla suturaal na ma. duma wax ci waxi ñàkk fayda honorable la député. dañ may toojal yow. dootuma wax waxu ñàkk fayda. d'accord kuréel ak bii toog tey du benn bii honorable la. barke ak Alxuraan dootuma wax dara ñàkk fayda d' accord maman fi may fi may jeexalee xam naa man nag émission bi mën ma jëndal parce que ma daf man dama ko bëgg ah maman maman affaire yi femme yi système yi ragaju xam nga Sénégal. Uh-huh. tray naa lu ne. Uh-huh. opposition bi dañ ma bëgg. ndeysaan. képp ku nekk ensemble bu ne Koura Ndiaye sama jóg di dox ñoom ñëpp nii la ñuy def. Uh-huh. su ma waxee ba pare dañ may tàccu ree mm-hmm. parce que des fois damay bëgg ñoom sax ñu kontaan. damay bëgg ñu united. Mm-hmm. bokk ñu fu ñu far. Mm-hmm. mais des fois dañu war a ree. damay ñëw taxaw naan leen damay ragaju man. man bu may wax damay ragaju. xam nga yooyu ñoom ñëpp dañuy xaqataay. waaw ma xam ni li may wax neex na leen. barki salaatul fatiha amul ku nekk. ci biir ensemble boobu di opposition man ku ne tey laay rey ma Macky amut. Hmm. dan may bégee. Sénégal laf cat dañ ma bëgg. Hmm. ñama ma waxoon yëpp bëgguñu Coura dem ensemble ñoom ñëpp woon nañ ma ni ma baal maaq ba ci Pastef. Hmm. ba ñu ma woo di ma wax vraiment Coura boo ñëwuloon ensemble du neex. xeexu ma fa de. xeexu ma fa de. te kat paa ba taxoon ma sumi sama mbub ma. lim ma wax de bu la ko waxoon yow nga dóor ko. fekk na ma fi ma taxaw ni ma yéen ay doomeeraam ngeen ñu def noonu seen nday ngeen ma sumi garaam mbub bi ñu téyeeti ma. d'accord saagaw fa nit nday ku ma saaga ma fayu. ci kanamu sénégalais yëpp laa koy wax sew ma ko kenn sama yaay moo ma jur sa yaaya la jur. Mhm. li ñuy wax sama yaay mu naqari ko mu naqari ma barki alxuraan duma ko may benn sénégalais duma ko balal ku ma saaga nday ma fayu amul honorable amul dara yaay yaay rek la. Mhm. te dama fonk sama nday ji mu dee. fii ci sama kaw tànk yi la sama yaay faatu. may bàyyi beneen doomu Adama taxaw di ko saaga ma naan honorable la that's not me I'm gonna pull the gun. I'm gonna pull the trigger yow. Mm. blow sax waay yow. <laughs> bulow sa bopp wala ma damm sa tànk yi man lii laay def kafuma ak ñoom saagaw ma ci kenn nday seen naa feq gi yom ay baara dolli mais dëgg wuñu wax ju Sénégal yi dëgg Bartali bi Sénégalais yi voté la pour nga ñëw waxal leen mais Bartali bi boppam la doon wax tëj biñ ko tëj la doon waxanteeg Sidiki mhm. Madior Fall Antoine moom ñoo ko fi indi kenn ñoru ko doomu politicien la. Hmm, d'accord mu mel ni ñu ngi may signaler ni hmm. waxtaan bi xam naa ne man bu ñu ma toppoon fi fi suba du ma doyal parce que dama ko bëgg. maman kontaan nañ ci dalal bi ñu dalal. jërëjëf euh, di la sant di la gërëm. jërëjëf sa euh, moo de la fin ci bi. Mm-hmm. sama mot mujj mooy. Mm-hmm. xale yi réew mi laay waxalaat ba tey. Mm-hmm. jeunes yi nañ góorgóorlu ñu dimbali seen waajur yi. bu la kenn xeexloo ci loo xamut. quatorze yi dee woon seen am yi du tëdd parce que xamuñu lu leen rey te il faut dañ leen a yaakaar ëllëg euh, gaz bi ñuy wax ak yu baax yi yéen di ngeen ci am wàll torop day fekk ñun ñuy màgget dootuñu am kàttan ku def sa loo mbooj sooy dem wuy ji demal nga wuy ji mhm. Sonko du moom moo fi njëkk violé Sonko du moom la ñu njëkk tëj du moom la mujjee tëj loi day am cib dëkk. Mhm. mënuma génn léegi def tooxi doona ñu ne kura député la nañ ma tëj. Mhm. wax naa ko ministre justice. Mhm. bés bu ma fi defee lu ma warut def. bu leen ma may minit summi leen sama mbubu député jaarale ma yoon. noon la réew di doxee. démocratie bi am Sénégal amul Amérique gi ma dëkk. ku la neex saaga. boo ma saaga woon léegi ci vidéo Amérique ñu jël si la. returning order laa lay defal. ñu woola léegi mm-hmm. dootoo ko def sama numéro dootoo ko xam mm-hmm. soo ma dugalee ci YouTube bi ma porte la plainte Amérique ñu ne la demal nga génne ko right now balaa ngaa dellusi si court mm-hmm. ok fii nag démocratie bi is too much d'accord di wax réew mi rek ñu góorgóorlu xam ne ñoo ko bokk Macky lu mu yàgg-yàgg dafay dem su demee keneen mooy ñëw. Mhm. te lii bu ñu ko réglé wul. Mhm. keneen ku ñëw dañ lay fekk biir pale mhm. Ousmane jàngal na ko xale yi sadik nañ. xoolal tiire bal yi fi am. xoolal jàmpaaka yi sénégalais sénégalais du la tiire bal. ñi doon tiire bal dëkkuñu fi. lii il faut ñu wàññi ko. ñu wax il faut sénégalais yëpp àndandoor mànkoo ni du ñu nangu benn góor bu ñu jiiñ viol ñu yàq sunu réew. il faut xale yëpp wax loolu. Ousmane dem wuyu buy dem ci kaso bi mu dem suñu koy bàyyi ñu bàyyi ko suñu réew nekkaat ci jàmm ñu move on. Adji Sarr Sonko is enough. Mhm. am na yeneen kaa yu fi ne. Mhm. li tax mu metti mooy kii dafa laaj réew mi. Mhm. su laajuloon réew mi doo dégg bii bruit. te balaa nga jox nit réew xoolaat ko. pour ëllëg xoolal Ousmane li mu wax yëpp est-ce nuru na homme d'état. du do du am état. du ko nekk. wanewu ko du jëmm ji du wax bi du dara lu lay wan ni kii dina toog fii senegal du am mhm. na jox keneen kooku doxal Pastef moom mu dem mu toog carrière am yàqu na di ñaanal Sénégalais yëpp jàmm di leen wax lu dul jàmm jàmm ko gën di ñaanal président Macky Sall yal na ko yàlla jàppale ci yan wi di leen ñaanal yéen it ngeen gudd fan ba fekkee lépp wasalaam